kii ma door ko tànk ba mu bëri nan la ma mën a daanee. nan la ma mën a daanee. ko door tànk ba mu bëri nan la ma mën a daanee. waay waay def leen tànk nag. parce que Seydina Mouhamed Sène dinañ ma jox sama ndam. Matar maa ngi lay ziar. yow ñaari mbir yi koo ci yor. soq laa yor waaw. soq nee na daanuwul. Mhm. yow loo gis. ah non ma dama jàpp kenn Jackson dafa bi muy defar dafa toog bon wóoruma nag comme image yaa ngi fi moom lu waaye wax rek nañ ko xam mais de toute façon daañu ko xool su fekkee am na ñun dam li yoon may xam nañ ko. man gëm naa Jackson bi mu jógee gis naa ngeen li toog ngeen bi tax suuf donc gëm naa bi muy rulaat dafa toog doog a jóg waaye mais nag lu waay wax rek na ngay wax loolu leer ndax image yaa ngi fi incha allah daañu ci xam dara dans quelques instants. kon yow maanaam recours man nañ ko tey xaar. ah bien sûr bu ñu gisee ne suñu mbër li ñu jot jàpp naa ne soq moo daan te su ma gisee moo daan vraiment dañuy def recours loolu moo amul werante. koy Matar Ndiaye moom mooy mënaat sa soq Bamba mais Bamba daal lu mën a xew mooy soq. ñàkk na combat bi fii ci arène nationale dafa Jackson waaw Bamba waa kii waaye ngee Bamba waa kii waa kii ah waaw man maa yor Jackson mu nekk xale bu tuuti ma yor ko ba bis ni ki tey yàlla tey yaa ngi dégg heure boo ñëwee ma kontaan ma heure boo ñëwee ma soq na ne daanu soq na ne yéen a daanu ah soq na ne yéen yéen a daanu soq na ne daanuwul mu ne daanuwul yéen a daanu mu ne ñu ñoo daanu waaw xoolal rek dem nañ baar dem nañ baar dem nañ baar baar baar dégg nga li wax ah baar dañuy xool xoolal